sportif euh, voler. laay Sénégal la volé, mais il a joué. di jouer ba jouer équipe nationale Donc, donc un lien le Sénégal aussi donc euh, au nom de Berlin je me du du man rek maa situation bi quoi amna ci football amna ci basket ak ci yenen sport donc euh, man sama interpellation ou bien sama intervention de joueurs côté coopération bi bon administratif Le plus lu def coopération par rapport à Qatar et au Sénégal je sais que si une nouvelles qui euh, information nous avons gis coopération entre le ministère quoi entre euh, ministère sport Qatar et bu Sénégal donc euh, man personnellement dama bëgg loolu noonu gars yi gën ko jëmmal quoi parce que je sens que ñun bon jox nañ Qatar lu sport sénégalais en général quoi pas seulement volley football basket affaire donc côté Bob, la bëgg coopération bi mu gën actif actif par rapport pour le euh, Sénégal war a mun bénéficier si si si ñun li ñu leen jox ñoom quoi waaw parce que Sénégal lañ jàngee métier bi jox leen ko suñu carrière yëpp a lañ ko joué donc tey tamit bu ñu paree suñu carrière dañuy ñibbi Sénégal donc bëgg nañ tamit pour suba xam ñu suñu ñëw fi tam amal njëriñ Sénégal wara a tam bénéficier si si si ñun li ñu leen jox ñoom quoi. waaw parce que Sénégal lañ jàngee métier bi jox leen ko suñu carrière yëpp fii lañ ko joué donc tey tamit bu ñu paree suñu carrière dañuy ñibbi Sénégal donc bëgg nañ tamit pour suba xam ñu suñu ñëw fii tam amal njëriñ waa Sénégal quoi donc côté boobu laa bëggoon bon mosuñu am. Euh, chance béni nii toog autorité et ministère du sport affaire donc c'est vraiment c'est une occasion bo xamantene ne nañ ko tenir pour yëgal leen kàddu gi ngeen yëgal ko ci kaw président bi manam affaire bi am jëmm quoi que ñun am et puis ñun on est disponible quoi waaw personnel ambassade bi am nañ suñu ay contact donc ça yo leen ñëwé fi suñu naree dox dugg ci dëkk bi parce que gars xam nañ ñu dem gis yenn autorités yi par exemple rien que pour euh, yokk affaire bi donc loolu lañ bëgg quoi que Sénégal suba ñun bu ñu arrêté sport Sénégal bénéficier si ñun li ñu jëriñ Qatar. waaw donc loolu côté boobu la intervenir et puis merci. jërëjëf euh, monsieur Coly